صلى allahu wasallam ala sayyidil mursalin mbokki téléspectateur ak téléspectatrice yi di sibbiheen di Farokh TV seen mbokku Oustaz Modou Mokhtar Diop ñëwaat tabaarakallaahu àndaat ak seen mbokku sëñ Boubacar Bari ne ci caméra bi seen émission suumu tashihu ñëwaat tey ci ñetteelu tomb bi ñu nar a waxtaan ak yéen li ñuy tuddee saraxe ndax gis nañ ne lool bëri na ci weeru koor wi te mu nekkoon feebar boo xam ne avant koor gi di ñëw feeñu day mel ni weeru koor ak weeru koor kese lañu war di saraxe kon bi weeru koor ñëwagul woon feebar boobu làqatoon na ci suñu biir waaye bi weeru koor yi ñëwee bañ ko defee euh, rajo ci la feebar boobu feeñ saraxe mbokk yi dinu yàlla bëgg bokk ak asaka asaka moom farata la xëy na bés dana jot danañ sama mosa yegsi waaye joxe sarax moom lu yàlla bëgg la yàlla bi mu lim sax ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla dëgg dëgg dëgg ci commencement wu téere bi alif lam mim zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin allazina yuminuuna bil xayb wa yuqimuuna as-salaata wa mimma razaqnahum yunfiquun gis nga wa mimma razaqnaahum yunfiquun mooy li la yàlla jox nga jël ci di ci dimbalee jaami yàlla yi yàlla mu ne loolu kum na ci yow xamal ne gëm nga yàlla dëgg-dëgg kon avant koor gi di ñëw day mel ni feebar bii def ñoo daloon waaye bi koor gi ñëwee rek ci leen xam ne dëgg-dëgg amoon nañ malade bu métti mooy ñàkk joxe alal te alal yonent bi sallallahu alayhi moo ñu wax ne hasinu amwalukum bi zakat waaye wa daawu mbar daawkum bi sadaqat neena rek rekk sen alal yi bu ngeen beugé mo am sécurité du yàqu tay barké di dolé yonent bi ne génne len azaka su ngeen ko defee rek yalla yokku alal di barkel ñu ne ko lo leer mu ne yi bu ngeen beugé mu yonent bi ne len ko sarax waaw moo tax sëriñ si da ngay gis booy dem sax bu ñu lay faj ñaari wala ñu lay ñaanal dara nga am soxla dañ la génneel saraxu nangam fekk addis yonent bi la yonent moo ne bu ngeen feebaree wala ngeen xam jafe-jafe jël leen sarax ngeen joxe ko waaw lamat sarax nag lañ wax waaye waxuñ ñu ne la saraxeel nga jël ab sondeel sondeel ban soxla la mën a faj boo jëkkatee saakoob ceeb gis ku néew doole ko xamna am lu lek nga dem nako ko bi am ta yàlla jox la nga tàllal sa loxo ne ko ñaanal ma lo mën ti bëgg ci adina su la ko ñaanalee day nangu ndax sédal nga xolop te fekkon nga ko fo xamne ne jaaxle woon na bi nga yëkëti lu ko mëna dund lu mëna dundé nga jox ko ko lu la ñaanal yalla nangu kon yonent bi ne bëgg na amé problème xam ay jaaxle bëgg yalla dimbalé len yonent bi nee na joxe leen génn sarax kon mbokk yi problème yaa ngi doon fees waye midi kama bi ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa na mooy sarax comme ni koy defee ci weeru koor ni nii su weeru koor wi jàllee kon saraxa ngoog waaw jëlee nañ ci benn hadiis yonent bi ne maa naqasa maalu maa naqasa maalu min sadaqatin xattun wala afa rajulun an masamatin ila saadahu biha izzan wa ma tawaada rajulu ilaa rafaahu llaahu aw kama qaal yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne yii nii yéen a ngi yaakaar ne dalay wàññi waaye wàññi day yokk ñu ne ko lan la mu ne bi ci njëkk tabaarakallaahu moo nekk saraxe saraxe wàññiwut alal mais daf ko yokk ñu ne ko loolu leer na mu ne nit tooñ la nga baxal ko dafa ni du ñàkk fayda waaye dëgg-dëgg soo ko defee yàlla da gën a yëkkati ñu ne ko leer na mu ne beneen bi ngay suufeel sa bopp yàlla jox la grade bu nekk jox la ndomba tànk bu nekk nga mel ni du yow ne teg ba ku ñëw sax buy laaj ana sëriñ bi wala bu laaj ana borom kër gi wala buy laaj ana patron bi day mel ni mën na kaa ba sax te du xam ne diw la yonent bi ne na loolu ko def na xam ne yàlla yëkkati na ay grade yëkkati na sa grade ci euh, ci aara sa kursi yu yëkkati na sa grade ci xol jam yalla ñu gën la bëgg ndax nit ñi booy ngan ngandalu di leen wone ma leen gën rek ñom tamit ñu fipp xamne ne gënoo ñu nit nga ko ñun kon bo wacce sa bop yalla bëgg la malaika yi bëgg la way nit ñi hit gën la bëgg kon so koy def day nit lu xew ndax alal ji ngay jël di ko joxe day melni wañi ko ne yonent bi neena na la ki la tooñ nga baal ko day nidu ñak fayda ki nga xamantene ni day dafa suufeel bopam day nidu ak waye dino fekk yoy yëpp nekata dalay yok kon fa tabaarakallahu mbokk yi febar la bo xamna dalon nañu legi ngan ngan yu bari na funkeeku gi bari na bay diw fim tolni lo tenen ni rek mo xam lo tenen ni mo xam boko uppe alal da da ko wan ko mala upp alal soko ko daraja da ko wan ko mala upp daraja ak lu mën di don rek da ko wan ko mala ko to te yonent bi waxon nañu dedet bu len def lol su ngeen bëggee yalla yëkëti len den la wacc seen bop man tawada lillahi rafaahu allah ku suufee sa bop rek yalla yëkëti la kon ala kulli halin mbokk yi ñu ci xal bokku na ci saraxé so koy def malaika yi dañ lay ñaanal ta malaika yi lu ñaan yalla nangu ko bi sallallahu alayhi wasallam mo ne ñu benn bes bo xamni nit ki dana xey lu dul ñaari malaayka ko top ki mi ngi ci mbagam droit mi menen malaika mi ngi ci mbagam góos ana lan lañuy wax kenn ki daf naan allahumma aati munfiqan xalafan yalla ma ngi lay ñaan ki nga xam ne boo ko joxee alal du ko yemale ci boppam da koy joxe yàlla dolli ko dolli ko dolli ko malayka bi sa droit loolu lay ñaanal malayka bi nekk sa góos nag moom li muy wax mooy allahuma am sik mum sikan talafan ki nga xamante ni da koo jox alal mu bañ kaa joxe malayka bi ne yàlla nangu ko foqarti kon diw amoon na ba si kanam waaye dafa ñàkk en général li si ëpp bi muy am daaw dimbali waaye soo doon dimbalee malayka maa ngi lay ñaanal yàlla di la jox waaye soo dimbalewul nag malaayka bi ne yàlla bu ko jox dara yàlla yu téye li mu amoon kon lii moo fi nekk kon booy joxe alal malaayka yi dañ lay ñaanal muy dolleeku te malaayka yi lu lay ñaanal yàlla joxe yooyu maanaam lu ñu lay ñaanal yàlla nangu ko yàlla yokk la loolu kon ku ci bëgg yi yi di la ñaanal ngay tedd sa alal di dolleeku acca saraxa ngóog sarax wax naa ne la dafay dolli alal am na benn nettali boo demee ci ruuxul bayaat da nga ko fekk riyaadu tafsir bu Mawlana Cheikh Ibrahim andi na ko waaw daf ne dafa am benn góor dafa liggéeyaloon benn yonent ba yonent bi kontaan ci moom léegi yonent bi laaj ko ne ko ban ñaan nga bëgg ma defal la mu ne ko daal damaa bëgg nga ñaanal ma maam xalal alal rek laa bëgg ben ñaan dal ngay wax ne li la bëgg ma ñaanal lako yalla defal lako comme defal nga ma teranga te teranga teranga koy fay waji ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ma am alal mu ne xaaral ma dem tàggu ci soxna ci soxna su bax way legi nak moy xol su ko nexé alal di ñew legi su ko nexé ma bayiko ba dundam ma soog ka jox waa ji dem laaj soxna ci ne ko yonent bi ma doon liggéeyal de daf ne ma naa wax benn ñaan mu ñaanal ma ko léegi nag man xalal laa ko wax nee na ma wax naag yàlla yàlla ne ko maay xool su ma neexee alal ji ñëw léegi su ma neexee ma bàyyi sama dernier dund alal ji soog a ñëw léegi nag ma ne naa ñëw laajal yu saqilaat jabar ji ne ko wax ko alal ji ñëw léegi te bu ñëwee dee déglu samay conseil waa ne ko ah wóorut de heure bi am naa doole de mën naa kay maçon yi de mën naa kay yenu ji ñu may fay de liggéey bu ne mën naa kaa def ñu may fay ma ëddi ci kër bu alal ji ñëwee léegi ma dem ba sama dernier dund sama kartan jeex yàlla jël alal dama ñàkkaa nu may def mu ne ko déglu ma rek na alal ji ñëw rek te nga déglu ah mu ne garaaw comme déggal na soxna ci mu dem wax yonent bi ne ko ñaanal ma léegi alal ji ñëw yonent bi ñaanal ko alal ji bëri mu ñëw wax soxna ci ne ko acca bisimilaay soxna ci ne léegi kër goo tabaxati xam na ñoo xam amul amuñ fuñ fanaan tabaxal kër gi nga yéene leen ko nga jox leen ko ya. yéré bo boo di sol bo génnee fi gis ñoo xam yéré yu trap yu tilib mom lañ sol ndax ñàkk sa boo jëndee dàll jëndaale dal nga joxé ko manam lepp lo défal sa bop rek défal ko kenen hatta sa bo toggee sax yakal benn bol bo xamné ne xam na ñoo xam ne amuñu lekk nga jox leen li dal ne ci mu ne ci waaw netti netti fekk yàlla daf na ko léegi dundam di dama koo xaaj ñaari xaaj masalaan bu doon téeméeri at la bu ko neexee juróom fukk yu njëkk yi mu ñàkk yeneen juróom fukk yu mujj yi mu am waaw waaw juróom fukk yu njëkk yi ñàkk yeneen juróom yu njëkk yi yu mujj yi mu am léegi bi ko waxee na alal ji ñëw léegi nag ñu jox ko ci juróom fukk yu njëkk yi ji ne ko del dimbalaati muy dimbale di dimbale di dimbale ba juróom fukki at yu njëkk yi jeex yàlla wax yonent bi na ko yoonentou bobu du yoonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nak ah, la waaw borom teeri yi turum turam ah. waaw ne ko sama jam bi de dama waxone ne 50 ans mi mu juroom fukki atami yu yi lay am yeneen juroom fukki mu ji mu ñak waaye legi 100 ans yi mo waroon a muy téeméeri at yëpp def naa ko mu nek borom ala waaw ah, mu ne ko pourquoi yalla ya wax ne lo wax def ko juroom fukki nga neewon moy am yeneen juroom fukki mu ji mu ñak mu ne ki fatuma bi ma ko joxee alal ji taxul mu fàtte ma mi ngi ciy dimbale sama jaam yi lii moo taxoon ma jox comme dama ko koo jox nag mu gore man tamit du ma gën a gore dundam gi yëpp milliardaire lay doon kon mbokk yi tey seen suumu tashiwu loolu la indi woon saraxa ngoog ñu ngi koy def ci koor gi nañ ko continuer di ko def yonent bi nee na suñ problème yëpp sarax moo ko mën a dindi malaayka yi dañuy ñaanal te saraxe day yokk alal te ku ne nga bëgg kon ñu radio ba suba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu